waaw di wax ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur ah. di wax mention spéciale pour dof yëpp xama te 5 tonnes benn ndaw la bu jur 1997 ans ah. sixième mois troisième jour hôpital Ndamatou Touba yee kon doomu aadama bu ne soo juddoo xama ñu dañoo juddu et puis ñu nekk ay doom bawal xama ñu yóbbu ñu dem jàngi daara yee bi ñu diggee fekk suñu papa xawoon na yor tudd weccat maman yooyu noonu bi nekk si daara ji xama di jàng ba wàcc ba toobaat ba ma rislim leen ñëw bi ñibbisee ñibbi suñ kër xam nga fekkaat fa benn situation boo xam ne bi ñu fay jógee bi ñu jógee bi ñu fay jógee dem daara situation bi ñu fa bàyyi woon ak bi ñu fekkaat bokkul yee bi ñu ñëwee fekk dem xam nga affaire xaw a dëgëraat may la sumu ñuy souffrir si loolu noonu xam nga barke sëñ di dund lu métti loo xamante ni xam nga kon tey loolu man su ma toogee di ko xalaat sax ay jooy daf may diggal quoi ndax xam nga dañoo digg fekk bu moment yooyu noonu xam nga affaire bu dëgër xam nga dama mujj sax fa laa yegoon sama waagaale barke leeru alxuraan billaahi wallaahi damay xëy dem marché Ocass barke Serigne Bamba Mbacke dem yelwaani jën ak i lujum ñëw jox sama waagaale sama ñoom yaay togg togg ba may ñëw laa fekk ñu ndékkee ñu togg si añ barke leeru alxuraan su gudd jotee may laan reer indi leen ndax xam affaire dafa metti quoi yaa ngi dégg mhm. affaire dafa metti ndax xama tamit mooy loolu nga judd rek nekk góor may la sum waaji xama may la sama waaji xama loolu dara gënu ko metti barke leeru alxuraan ñu du xam fekk situation bi dëgg trop ñuy dem di yelwaani barke leeru alxuraan laa la wax de damay dem xëy fajar teel dem mat dubin ba yelwaani ci saret jën yi buñ wàccee ma puus jën ñu may ma jën ma dem yelwaani ay lujum barke sëriñ Bamba ini sama waa gale loolu dama koo dund boo may laaj di ma gën a mees sama àdduna loo xam ne dama koy xalaat di ko jooy loolu la xama mais affaire suñu borom loo xamante ni nekk na li ma gën a marqué loo xam boo may laaj li ma a neex xama di wax ne xam ne àdduna damay wax sama morom sa zeni quoi àdduna dara yàggul isaan fi ma la waxee àdduna loo gëm loo ne suñ borom mën a see génnee ndax tubaab moo ne laisse la moudo parce que un jour viendra il faut appliquer sa ñàpp trois quoi seeti ko ne kon doomu aadama bu ne da am loo xam ne koy gëm muy sa visage saa yoo xëy na da nga naan man lii ñaan yàlla yegg fa xam nga ñun dañoo am ñoo xam ne tey ñun ñun ñu loolu noonu man yaakaar naa loolu war naa man a dee si gox yi quoi man xam nga man xam ñu laay wax ah, man bala maa dee ñu ne Sénégal ay minti milliards minti milliards les minti milliards yooyu ñuy wax noonu ana ban minti milliards nga dégg ma investi loo xam ne jeunes yi xam nga gis nga ñun xam nga xam baaxoo nañu jàppalante quoi géejawaay barke sëñ Bamba baaleeb da gis ay ñoo xam ne dañu dëpp cin wala nga jóge entraînement ay maire di la ñaan naan damay taala sama doom añ loolu lan moo ko gën a metti loolu kañ la fi jógee quoi bala maa dee ñu ne minti mi daa ne suñ maire yi xoola liggéeyuñ cent franc bala maa dee ba élection jub see jël mbër yi xama diñu utiliser ñu génne suñu yaay suñu grand frère yi suñu rax yi mobiliser leen ah yóbbu leen ñu leen jox ay 1000 francs ay 2000 amaana sax xoola bu élection yi xoola ñu lay karre bu jaalee koo si woo ko jot am na maire yu bari wax na ne bu Macky Sall doon dugg seen ngox guddi barke leeru alxuraan mu folli leen ndax liggéeyuñ seen population dara mais amaana loolu kañ la fi jógee quoi ñun dañuy nax chaque jour quoi ah xam nga ñun ay sénégalais lañ am na loo xam te ne dara xoy suñu diggante quoi mais gars yi nañu jàppalante xam nga ay am ay xaalis yi tey defaloo si dara amul sens yaa ngi dégg mairie nañ liggéey bu baax a baax quoi mais loolu am nañ ci pas de responsabilité ndax ñun suñu yaay ñoom ñoom ñoo war a wax amul fu ñu waxee ñun ñooy seen branloo am nañ fu ñu waxee ñooy seen vote de voix dañ leen di waxal kon loolu noonu amaana kon tey war na fee mën a jóge quoi ñu ñuy nax chaque instant te li ma gën a naqari politicien mooy su élection mu jël la barke leeru alxuraan seen buntu yëpp la ñu tijji élection yi bu jàllee doo gis mais amaana loolu kañ la fiy jeex amul benn maire boo xamante ni da dem mu gis ko mu yeewa goxam bariwul man xaw ko bokk man personnel man géejawaay laa dëkk waxee naan mim zat Racine Talla mooy sama maire seeti ko ne mais gars yi nañu liggéey quoi mais amaana ku jekko war quoi loolu noonu man bëgguma loolu yaa ngi dégg mais amaana xam nga mbëru ndaw yi koñ di sonal booy xam di ñaan ay téeméer ay cent franc mais loolu noonu dafa war a jóge mais dégg la war na laa mën a dimbali mais xam nga tamit ku la gis ngay góorgóor dina xam mooy gën a neex a si contrat yaa la 5 avril la ñu war a bëre waaw xam nga léegi mat un an diñ presque ay 6 mois ba mu des 15 la corona bi fi ñëw fi réel xaw ma fu yaa ngi dégg siini la démarré ñëw ba fii mooy Sénégal la fi gën activité man d' accord naa ñun ay sénégalais lañ dara xëyu ñun est ce que déggoo ne seen waaye ñoom ay six doom lañ daa jur comme jinax pourquoi mënuñ koo bloqué mu dem foofu noonu mu ray leen mu ray leen waaw kon si kaw loolu noonu ñun ay sénégalais lañ ñun par benn la ñu jur ki ci a bari boo dee xool ay doom bu baree ba bari six doom la am ah léegi seen waaye dañ ne comme jinax la ñu jur benn jur benn comme mu juró benn jur six six doom la ñu indendoo ah? yaa ngi dégg léegi ñun ñu préparé suñ ay 6 mois ba mu des 15 jours obligatoire état war ñoo ba dimbale ngir yàlla ñu xama ay mbër mu xama para mbër mu ndaw mu préparé combat am dugg fu ne liggéeyante xaayasam dem Gambie xama ànd ak ay mboxam préparé social am ñëw ba combat de 5 jours ñu ne réel loolu lan moo ko gën a ñaaw ah? ba tey isaan ñun amu ci leen loo xam teel ñu ñu woo affaire véhicule la ñoon toog da ci vasé wu nekkaat ci entraînement yi après déggaatuñ dara ana mais si gars yi war na mën a trouver solution quoi ñun Matar ba suñu papa la moo ñu waxal moom moo ñu teewal foofu noonu moo suñ bras droit ndax moom mooy suñu ministre de sports yaa ngi dégg mais làmb man xaw ma qu'est-ce y a quoi loolu gars yi naan arène nationale mooy bàmmeelu mbëri boo da xool loolu lay doon. mbër léegi troisième question bi damay ñëw si géejawaay c'est-à-dire sa dama lay laaj li xolu mbëru géejawaay ànduñu kii bu waxee li kii wax contraire bi lan la lan la. non xam nga lu wax mbëru xolu géejawaay ànduñu da ngay da ngay duut baaraam quoi wax xamal lan moo ne si àdduna. Mm-hmm. nit booy wax da nga diw da nga naan guy gi lan moo tax muy xuloo booy yi loolu ngay wax mais bul ne xolu mbëru géejawaay ànduñu. ñaa dégg mm-hmm. bul da lan moo tax booy yab ko ku jóg rek génn dal ci kawam loolu ngay wax. yow yaa neexoo guy gi nag. non nga posé da ngay diglu avant parler mm-hmm. il faut réfléchir euh. dama ne la da bul wax ne comme mboo xoolu géejawaay ànduñu da nga naan guy gi lan moo tax moo waa géejawaay kalan bi ku wax dal ci guy gi lan la guy gi géejawaay baa la gee nga fa mhm. géejawaay laa dagee nga fa mais est-ce que yow ni ngay déggee booy ku am accès rek génn kuñ dégg micro rek nga dal ci kaw guy gi guy gi xam na la war a xam ah dafa a xam ne ñii moom bokku na ñoom bokku na ñoom kii waa niveau mhm. ni da ngay matière mhm. yaa ngi dégg ni da ngay nekk kilifa mais am na yoo xam ne bu ko jéem a di ko di ko di ko def di am ay kalan baaxul guy gi Baye Fall la. mais xëy na moom comme fulu ju bari moo ko xaw a sonal quoi. te gis nga doomu aadama yi moom nam meloon ba egsi fii na continuer loolu noonu. yaa ngi dégg mais li ñuy def ñun rafetlu wuñ ko ndax ñun suñu rax seen i rax lañ. yaa ngi dégg ñoom suñu seen i suñu référence lañ war a doon ñun si ñoom la ñu war a xool jàngat. man liiru jaan woo naa ko téléphone bi man rafetlu ma action bi <coughs> gi woo naa ko. xam <coughs> loolu noonu rafetlu wuñ ko. rek. ñu xoba ñoom ñaar dañu jubóor ñu demaat ba fay defaat xam nga man man xaw ma la la quoi ah. Mhm. waaw mooy li ma la wax rek xam nga ñun moom ay sénégalais lañ quoi. ceci mhm. faire le dos sans les sénégalais. Mhm. yaa ngi dégg. Macky Sall ñun ñoo ko fal. yaa ngi dégg. Macky Sall mooy suñu papa la suñu président la. yaa ngi dégg. mu neex mu naqari sant mooy suñu président Ousmane Sonko man kaa boobu mënu ma ci avancer en 100 pour cent. ndax xam nga mënu ma ci avancer en 100 pour cent. mais àdduna loo xam ne day taalum réew kenn waru koo def. yaa ngi dégg mm-hmm. mais am na ñoo xam ne seen alal seen yoon nekku ci politique seen li ñu defaree seen alal seen yoon mm-hmm. mm-hmm. mais war nañ a def ci anam boo xam ne xama coow du jib quoi waaw ndax laa mu ci yi mooy loolu yaa ngi dem foofu noonu ko tubaab bi ngay téye sa weccet moo ko gën te moo gën a yomb fere làmb fii da yor say million sam waajo xoola dugg ci àll bi dem fu ne génne sarax <laughs> xoola sonn booy bëgg de nga rikk ñu laal la fil la nga këpp man jour bi ma daane yàlla laa la waatal sëfoor bi di ñu aw APS dama ne ko yàlla na oto bi këpp ñi ci ñëpp yëpp ndax xam automatiquement da ngay xalaat li nga dund quoi xoolal ma ne ko yàlla na oto bi këpp barke sëñ Tuubaa ba bañaam loo net li ñëpp dee mais xam nga xalaat dof la quoi mais mm-hmm. da ngay xam ne sa waay laamu Sénégal dafa metti Sénégal ñoo xamul sport <laughs> voilà ah. am na benn maara barke sëñ Tuubaa bi ñu siwala combat bi da dem boo àggee combat bi du am deux secondes xool bi ñu ma daanee ma taxee international xool ma ngi affaire tourné nii ci ot sama xel ci moom la njëkk a dem automatiquement fekk dafa jël woon ay basang xam nga basang basang yi la ma génn loo ñetti basang ma basang yi lem ñetti lem yi xam nga xam basang ma dërës mi li moom la génn loo sarax man maara bi léegi jël loo ma ñetti basang de ma dem marché bi jënd ñetti basang indil ko léegi ma ne da koy saraxee bi ma daanu automatiquement suuf damaa dem kër fekk ma lal genn ak basang maam bu amaatee combat dama lay dugal ma ne ko père yooyu yëpp waxuma ko am saa yu bas ma dem mais xam nga Sénégal moo métti quoi barke leeru alxuraan ba ci maalaay léegi sax dañ naan mbëri ay dof lañ dañuy exploité. est-ce que. mais ti laa leen a compris quoi xamal sport li ma la wax léegi. sport mhm. suñu jéggaane ko dañ koo bëgg. suñu sport national la quoi. nañu si jàppale. xama ndax ay ndaw lañ yoo xam ne dañ koo bëgg. Mhm. nekk si banlieue bi xama comme mhm. suñu genre gii di mat naal yow quatre matin xama dem géej. xama yaa ngi di dem saal xam def y a de film y a pas de loolu lan moo ko gën a métti. ah. mel su mbaaj da nga yow dem géej mais xoolal sa fara bi day jógee sa gaale ba géej nga sonn loolu lan moo ko gën a métti <laughs> ah ñu dee sa bopp ah mais. loolu ah. kan la ciy jógee quoi ah mais. Mm-hmm. loolu kan la ciy mm-hmm. yàlla bilaa wala da nga yeewoo sa gaale sa fara bi jóg ngir sonn laa la wax ngir bëgg doole nga téye ko ba àgg géej. yeewee na. <laughs> yeewel non. waaw sama kàddu bu mujj mooy xama di bëggee waa Medina TV ah di leen remercier di remercier fi ngeen ma fekk a ah. di bëggee xama bàyyi faa yi ma fi nekk gis nga fii fi laa nekk fi laay soulager fi laa xëy ma sama ci laam sama teraanga yaa ngi dégg su xëyee fii lay ñëw xama tey rek ga Abdou mooy jënd beñe moo lay xama yenn saa ñu dem port indi ay jën yu bari may ñu ko xanama la loolu dama ko ci remercier xama moom Abdou Thiam xama ak ak lëy xama ak maam Thier mu nekkal xama di sant ñëpp xam fii moom mooy loolu man su ma fi ñëwee damay soulagé booy damay nekk yaa ma gën a xam lu ma soxla dañ ciy taxaw mais et puis dama leen sonal trop xama ku si mel ay Baye Diouf mu ngi ni sam fils la Baye Diouf borom pompier xama sama xarit la barke leero alxuraan xama di sant mbay tamit xama di sant borom place yi père moom kenn amul xama kenn ama fayam quoi sama combat damay may egtise di liggéey bee commencé yaa ngi loolu dafa metti xama alimentation mbër mu ndaw dafa metti barke leero alxuraan ndax ma damay añ fii dem fee añ restaurant xama añaat fee mais loolu xama kañ la si jógee quoi ñun suñu avance bi jeex na bu yàgg isa suñ ngor la ñu nii rek barke leeru alxuraan te ba maaye jàll dama jàppoon dama jóge liggéeyu jàmbur barke sëñ Touba fu ma laal mu dëgër mburu xar laa jëndoon saako xar yi mooy yu yu yu mille de quatre cent cinquante yi dugal ko sama rôle la saa yi may dem entraînement poncé six bala maa jógee entraînement mu gondale da ngay dem ba da ngay manqué vitamine barke leeru alxuraan ah <laughs> mais ana Ah, mais ñu ngi remercier xam nga ñi fi nekk ñëpp mu li ma la wax comme ay ñoom Abdou Ndiaye xam nga lamb mm. ñoom lamb la ñu béggee quoi mm. di sant ay ñoom Xaadim xam nga sant Baye nekk fii yëpp ñoo xam ne yaay béggee 5 tonnes xam nga mm-hmm. Fallou sama fils la maa ngi koy béggee mm. xam nga moom borom Bawol moo kim nekkal Seex xam nga Seex borom dagg mi ah. <laughs> mais maa ngi bëggee Baye Fall yëpp daal di bëggee waa géej waay surtout di bëggee waa 100 ñi nga xam ne dañuy bëggee 5 mm. teefu mm. ñi nga xam dañ may bëggee di ma jàppale di jël seen ñaar dërëm seen fukki dërëm mm. di sa xama bi mu demee ba léegi taayewun dañuy barke leeru alxuraan ah ñooñu maa ngi leen di sant di sant waa Médina di sant coach bu Balla Gaye 2 di sant Birama Diouf borom Yoff séeri madame Diouf ah borom banque daa di maa koy sant bu wér a a di yu koy bégee. Mhm. Stapel cinq tonnes dof bi. Téfou Cavani. ça donne les am Kolda. toi ça donne les appels ça donne l'argent pourquoi. Cavani ça donne les préparations y' a pas de comme lii xam nga y' a pas de les mancé pourquoi c'est toi y' a pas de sousir c' est le mbër mu le mbër mu toi les liquides les cric c'est pas bon. Mm. mais c'est toi c'est là c'est le père c'est moi c'est fatigué de ah c'est dans les WhatsApp mignons c'est dans l'argent et les travail les pharmacies c'est dans vitamines il y a des préparations il y a pas de souci. Mm. remercier. Mm. c'est les tous les diaspora. Mm. c'est les Amkolda c'est les Saliou c'est les Ada c'est les y de toi. y de y a de Mor. y a de Mor les Pourquoi C'est donner l'argent. Il n'y a pas de comme toi. Ndax moi, on donne de Dieu. Si si faire de toi. Il mm-hmm. pas de trisé. Mm-hmm. Borom Morok, mort. maa ngi koy bëgg bu wér di sant gars yi nekk fi yëpp maa leen sant xama sant Ami Gueye sama jigéen maa ngi koy sant xama mm-hmm. di ñaan xama Sénégal yàlla na fi jàmm yàggu quoi di wax corona bi yàlla na fi jóge xama ñu dem nekk si beneen caution di sant tamit xama ndax fi ma fekk ni dafa nekk foo xamante ni sama comme ni ma la ko mën a waxee sama début fii la quoi géejawaay dëgg la sama lépp la mais fii kër gii ni mba ngeboraas mbapat gën dem dem téere déggoo bëri ji bii bërëg bolokaas téere mbapat fii téere déggoo rek foros fi laa bëree moom ndeysaan bii bëri mm-hmm. benn maire boo xam ndeysaan moom dañu doon jàppale maman yooyu noonu mm-hmm. xam nga jàppale si lu bëri yàlla na ko yàlla yërëm mooy maire Awa Thiaw mm-hmm. maa ngi koy ñaanal xam nga jëm gënal ko fi mu jógee ak bépp julli bu mu fa fekk te xamee njëkk a dee moom du dara cat la rek mais yàlla baax na xama di nuy doomam bi xama anta mm-hmm. anta tamit moom anta ku baax la di ko wax sa si remercier cette bon connotation c'est toi yaa di anta Ndiaye pourquoi c'est le fils de père Baba Ndiaye mm-hmm. y a pas de souci ndax c'est toi c'est les mamans mm-hmm. on donne de Dieu kon ceci anta c'est toi si remercier c'est toi y a pas de contention c'est anta Ndiaye c'est les mariages c'est les 14 doomi góor jigéen y de question mais di sant Baye Fall ñoom Père Batian ah, comme ni ma la ko waxee léegi ay ñoom Baye Diouf xama ay ñoom Abdou xama Abdou Thiam xama maam Thierno xama fils de Mbaye Guy gi xama moom a xam mbër seen activité ñëw toog di ñu assister émission bi waaw noonu la demee quoi ah mbër est-ce pare na pour vacciner wu vacciner wu mooy <laughs> waaw ñu yóbbu gars yi rek comme ñoom ay ñoom ay mbër ne ay fils de Mbaye Guy Guèye ak kii nu mu tudd Fallou ñu yóbbu leen rek <laughs> eh, am nañ benn saa saa daa sëppis ci ko ne sëppis